juróom ñu naan dara waaye soo naan ñaar fukki at yi ñu tàggee bisimilah rahmaan rahim ma fati saaru hubbee ma ma def ko def madina la ci son juróom ñu naan dara waaye soo naan ñaar fukki at yi ñu tàggee bisimilah rahmaan rahim inna fatana laka fatan mubiinan ko wax la wàcce ca mu day dia ba nga xam ne yéen dafa nelaw gént dem Makka nga saaba yi ñu ngi wër waa di wax seen ñaar yi di duuku mu xew nag li ko yi mais man de jërëjëf naa saaba bi waaw di la seen at yi di duufu mu xew nag ñu ko saaba yi mais man de jërëjëf maa ngi dem Makka maa ngi jël di wër ci saaba bi di la seen at yi di duufu saaba yi daal di kontaan xam nañ ñu jël sa yërëm bi moom mooy la ci daal di ne ko nañu waaj rek ñu dem Makka ndax yàlla may ñu ñoom rek mu daal di waaj ànd ak saaba yi ànd ak jigéen ak juróomi téeméer wala juróomi téeméer ñu ne ko ci mango euh, ci ci jërëm di daal di xamal wala xamee ne Seydina Ali la yónnoon yaman di ñëw kapp ci moom ubbil ko ñu ne fukki gëlëm kapp ci juróom benn fukki yaman ñu téeméeri gëlëm dañ ñëw dem ca bu day bi saaba ci waa Makka dégg ko rek te lu yàgg yàgg na Muhammad di ñëw dugg Makka rek yaaram yi defe na daf ci dugg ci kaw na teel dañ ko wàññi ñu ne rek yonent dugg Makka yonent toog foofu ay fan jokkalante ak yéen a yéen a sallallahu alayhi wa sallam xebal Ibn Usman ibn Affan jox ko gële moom ak baaro wala foofu ci ñu doon ñëw ne ko demal jox Quraysh na leen toog xare seen xare yi ñeent na leen ba jeexal sàcc ñu xëcc jóg man ñëw naa ñëw ba ngeen xare ñëw naa jëpp di ko jox xam ne dafay màggal ñuy yóbbu jaamu yàlla rek ma indi leneen indiwuma Seydina Usmaan ñoo wax leen ko ñu ne ko Muhammad du fi dugg yow nag ba yow wat kaaba bi dina neex yow may nañ la mu ne kaaba bu ñu xaayee Muhammad amuma ca soxla kaaba gaa ngi nii du ma ko jaxasoo mu bari wax ci diggante bi yonent bi na raa ñu Seydina Usmaan mu daal di dégg ne su fekkee raa ñu Usmaan du ma gis di mukk dafa ñu ma matal daal di dóor loxoom ci loxoom même Usmaan kat jaarante na gaa waaw fii loxo loxo Muhammad la fii loxo loxo Usman la maa ko def saaba yi daal di ñëw jaarante Usman ibn Abi Kisam moo jëkk a jaarante ne ko du ma yibbi lu may faj nañ Makka waaw wala tax naa bañ tey de kon ñëw na jaarante naa ci Usman ibn Abi Kisam jaarante nañ aaru bay affaire bu baax nañ jaarante woon foofa ci wala ñu ñëw si wàll wàcc ah fii gis nga ak ñeneen ci téeméer gën a gën a wér gannaaw bi Ikrimata ibn Abi Jahl booba tuubagut mu daal di gis ñaar seeni ci waxambaane Quraysh yi ci ñëw rek daanu ci xare bi yonent bi di defar Xaalid daal leen jàpp ñoom ñëpp waaw gën a saa jàpp ñu juróom ñett fukk dañu jébbal ci yonent bi ñu gën a daw dañ ko jébbale yonent bi yonent bi na leen def leen liggéey man xarewuma ñu ñëw nag loolu waaw def jàmm nag jàppale yéefar yi naa ko def xoroo tey moom ma soxor saxati buuru taxaw ñëw ne leen yónni leen ma ci waaje su ma demee ba gis ko bu ma gëstee lu ma leen wax rek topp ko topp leen mu dem man ñu yónni ko mu ñëw ñëw seet ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw xool xool xool gis jërëm yi nga xam ne moom lañ màng pour hadis gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu seet ba mu yàgg mu ne Muhammad daal ñu yi ñoo xam ne indi ci yow rek moo tax ñu naan la yow waaye ci def lu xale dañuy dawal ci la si ñu ne waaw kat saa yoo saa yoo waay xam ne kenn mënu ko naan di joor mu ne ko kanam mu ne waaw kat de ah mu ne yow defal na ma teraanga te fayal ma la ko yaaram su la sax naa la defalee teraanga te fayal ma ko mu ne doon doori doxee di ñëw jafe yonent bi buur buy waxanteeg buur ci yaaram dafay tëye jëfi ci moom moom jàpp na boppam buur la yonent buur la ñu ne ñu yor ci ci moom yonent bi rakam kat mu xëy na fee mu soobati moom moom la ca la wax sàmm yonent bi mu daal di ko di jaajëm jeex. waaw dafa ut si lii daal loxo yonent bi rek man soxna Ba xarala taw ñee ko ñoo ne Quraysh gisanduma leen aw hiin ci xareeb Muhammad dem naa Paris nañ gis naa nañ màggale Isra ne nit ñi saaba yonent bi màggale Muhammad dem naa Rome gis naa nañ màggale Qaysar waaye gis moom moo as buur ba màgg ci gisam ba mel ni Muhammad di saabaaru luy wax ñoom ñëpp ñu nga ci ci ne xam ne nit boppam jamono ci ci nekk. mu bañ mu naaw wax dalee lam wax rek ñëpp jëkkante ko ñu jàpp ñu reyante ci jàppit na ñu toppee ñu jëkkante ko ñu doole am euh, raay ci sa yaaf raay ci raay ci sa ma leen ci njëriñ ñu ne ko da ngaa ragal waa bi rek ñu ne man ragal daal di wax gëlee moom mu ngi taale loolu yi ñu xam ne fekk dafa ci doon romb yonent wax ak moom yonent wax ko li mu waxoon ne moom xare indiwu ko ñu rek yàlla bi rek doy bi yooyu nag ba mu jël see waxtaan ak Quraysh ne waaye bu leen fàggam mukk bañ caaxaan moom. te sooy di jël see yéen a ngi seen ko ne gaa ñu bëgg nañ jàpp nañ ci la xam ne sooy yi maam rek la ñabati di ñu ngi ci dégg mu ne soo raamul kum di ci jàpp ni ñu ne yéen a nag di def di te fukki at xare. bu ñu dimbale koy xale ñun ñu dimbale koy xale yow boo xale ñun ku ñëw jébbalu fii nag ñu ko delloo koo xam ne bàyyi na ko ñu bala ko ñu say saaba mu fekk fekk si ñu nag ñu ko bàyyi yéen a nangu yooyu yëpp ba nga xam ne laj na dana jóg leen laj seen yaadu rek ñu wàttu nit ñi wax na ko saaba yi def li mos a def seen dugub ñoom ñëpp ñu dem nañu ko dee ba yaakaar ci sax mu ne ko ñu ngi ci néegam ñoom Musalamata wax na saaba yi nañu wattu sa lëkk seen aar yu kenn defu ko su ne ko jógal lëkk sama aar rek sa sa waxta loo a ay aar yoo xam ne mu daal di wattu ñoom ñëpp daal di daal di lëkk seen aar yi daal di wattu a na ci man al saa mu gën a àdduna ñu ngi jiitam fa sama wàcce fa Omar ne ko leen di fatu la yéen a ko fatu la waaye ba fatu ma tëjee ñëwee ci gannaaw juróom-ñetti weer Omar xam ne la fi fatu naa la solo fattahnaa ubbi nañu la ka ñaale yonent bi la makka li nañu lu xam ba noppi ndax ci lu wóor fattahnaa ak ubbi ñu dinañ bëri aju bit waaye nga fa dugg bit ubbi nañ ci saaro yetti fatu fattan xariban dana ñëw fattan ñu dina nañu tudd na beneen fatu mooy ila jaa rasulullah fatu fatu ñett la parce ci la ci ci jëf yi nga xam ne jaam bi xam ne ne amul ci def dara lu mooy fatu ci saati bu la wóoree ne yàlla rek am na lool na lay kooku fatu mu diinal la fatu mutlaq na mooy fatu lakbar kooku mooy fatu mooy fatu li yàq dara baal la kañ la laaw yàlla maa tax a dem la gis na min tam bi ka ci bakkaatoo maa tax xalaat la mujj na yàlla ubbil na la Makka baal na la lépp lu jëkk lu mujj ci say bàkkaar de wayu tulma te mu matal ñaamata xewalam ala jëkk yow way aji jëkkam jubal la siraatam yoon mustaqim mu daji ji wayam suraka laa wata dimbale la yàlla masan di baax sen la aji mabbe dina fatana laka fatan bi diinam yàlla ubbil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li yaxfara laka laahu maa taqaddama min dambika yàlla baal na la sa mbooleem bàkkaar bi dëkk lu mujj wayu timma ku wax wayu timma mbaa wa ni'matahu wa yahdiyaka Allahu siraatal mustaqiman yaaram rafet li wut baamu faaxel ci tuddee faaxel bi ci jumla ji jëkk ji rek fexeel yi ci topp dañuy xasa faaxel ja lu mooy wayam faraka laaw tuddaat na moom faaxel ci boppam mooy ci koy dimbale de ak xam le ne ndimbal mën lu moy ci yàlla moo tax ne nasrun minallahi wa fathun qarib idha jaa nasrullahi wa yansurullahi nasran azizan wa man nasru illa min indillahi kenn du gis nasru buñ na dimbalal dëgg-dëgg yaa ngi teg baatam laaw de in yansurkumullahu wala ghaliba lakum yàlla may na yonent fatu makkata matal na ci moom xéewalam jubal na ko yoonu jub dimbale na ko ndimbal lu dëgër de woo moom la fi mooy bu nga xam ne am sala wàcc na mu sàcc na sa dal dafa xuloo yéen moom ñene si xaliwoo jiriñe ba nga xam ne laay wàcc na jiriñe saa yonent moom day xam ne la muy am yàlla may na ko fatu baal na ko bàkkaatam lu njëkk ak lu mujj matam na ci moom xëy wala mujj wala ko yoonu njub njub nag mu ne woo moom la fi mooy bu nga xam ne am sala wàcc na mu sàcc na sa dal dafa xuloo yéen moom ñene si xaliwoo gëm ña yes taa doo gën nañu doole ko imaanam gëm naa imaan yi ànd ak gëm seen wala laa yi ñaan la yàlla juróomi sama waati ndege asamaan juróom-yaar wala ji juróom-yaar wa kaana laaw man sax dañu yàlla ali man jaaji xamaa yi deefam ak man jaaji xarañ ci jëfteefam yéen ci lan jot na mu xarfe am na ñu way gëm ñu góor wala ñu naa de way gëm ñu jigéen yaa ci tool sa jiw dama daw man sax daa ji seen na naar yi ak ñu nante xaalis dina nit ñi way déen jaa ba yore tool way kafra tam far an way ngeen sa yaati way ñaaw seen wa kaana masaraji dalika loole and waaye fa yàlla awsam di joxe asiman gu daal di màgg rek du may na du may na way dem lu mel ni may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana leen xarxaal jàmm faral na leen seen ñaawteef te may na leen taxe gu mag de bu yoon ci bëtam digal ak naafeqa naafeq yu góor ak naafeqaat ak naafeq yu jigéen wal musrikina ak way bokkaale ñu góor wal musrikaat ak way bokkaale ñu jigéen afamina ñëri way jokk bilaay ci yàlla war na sori njort lu bon la rek mooy defal yàlla di dimbali yonent bi rek alayhim yàlla na war ci ñoom daayira ci sooy wëndeelu mbugal de wëndeelu wala wëndeelu toroxte de wala bi wala yow mere na yàlla alayhim ci ñoom wala ñoom sori na mu leen yërmande waaw ba xam na mu doon ñeneen jaanama jaanama wasa ban na mu masiram ci dal waaye de wala laa ñu nekk rek ñaan yàlla juróomi sawaati léegi asamaan juróom yaar wala lekk yi juróom yaar wakaana laaw masa dañ yàlla ak yi sam daaji nag ci kuuram ak yi sam daaji xaray ci jëf jëfam de inna saahidan nga aji seede waral sa xeet wala basiran te aji déglee aljanna ci gëm wala siran te aji ragal lor safara ku weddi di toog noonu gis na ngeen gëm bilaay ci yàlla wala soo ñëwaat ak yonentam watu asiroo te ngeen dimbale ko moom yonentoo watu wasiroo te ngeen inna lajina naka ñaan ñu bàyyi wala dana ñu bàyyi dana ñu jaayante dana ñu jaayante yow naka danañu jaayante laa de ba ñu jaayante yonent ba jaayante wu ñoom kenn lu mooy yàlla ci jëmmam ku topp yonent bi yàlla la topp yàlla la loxol yàlla xooqaay yi ak nekk la ca kaw yi xasee ne ba ñuy joxante loxo ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba yàlla lañ joxante loxo de ba man naka fekku firi na mu wëlle nag bay na maa yan ko naka dana mu firi ala nafsi wal boppam wa man awfaa ummatal lahu liman hada te la wóolu woon dama alayhi ñoom laa yàlla parce que moom tamit am na jox ko ajuram yoo xam ne mu daal di màgg rek te yaqulu xam naa wax la kañ la al mukhallafuna ñu defal na ñu ne laara bi ci way màgg ya ñu demoo ñu demutoon bayat ridwan daa ñu wax ne saxal naa saxala naa saxalat naa soxla lanu amwalu naa ay jitulu wa ahlu naa ak ñan tuune ba saxir balu naa ñu am liñ bañ mën a dem bayat ridwan de yaqulu dañu wax daa sa ci ci lam seen maa lay sa ci xulóo bi loolu jël maa ji nekk ci xol seen rek bul waxal ba man yamliku ana ko dana mu jënd lakum ñaare ñaare ay jumbuganam yàlla fayam dara maanaam déet kenn in araada dem na mën a bi ko ci yéen baram baram dañu lor araada yi jamono bi ko ci na fan di leen bal kaana bal bay kaan laaw nekk na yàlla xabiran daa ji xam ne maa xam ne jël bay bay ganam buñ jox ko weer am na ñam xaliba naka ko fekk ci rasul yonent bi ko ñu na way gëm ni laa yi gëm ci ñaan seen abaram dafa yalla def na bu yonent bi reeru du di mukk ko ci na tara fa tan ci non de ko ko ci ci ko ñaan de ñu yonent bi dañ ko faagal mo nga man de wa sanam buñ tan jox ko sama ko ñok lu bam ko kun tan na xawon bi ñu borom ñu do yalla ko de o man la yonent ko gëm billahi ci yàlla wa rasulihi ak ab yonentam te innaa naka moom atam naa xarum na mun leen def nañ ñal wala yadina sangaram safara rek wala laa ñu naka la ñeel yàlla moom dafa waati bora sama ni juróom yaar wala rek ñu juróom yaar rek yaqulu lakum baal li ma ne saaw ñaan ku mu soob o yaa ci kam bugal ma ne saaw ku mu soob de wa kaana laa ma sa yàlla xamoram de ay de ñala ay jam rahiman de de da ndem falaku ndem bay jël ilaa maqaanima jëm ci mànga di taamu fa ngir na ngeen jàpp ko sarona bay leen ni na kam yéen kum topp leen de dañ wàññeekoo ca bayatul am lañ dem ay bar xam nga yi di naa fekk yéen a bëgg a am te maa ngi yéen a naa bale ñu ñu jël suñu wax bale ñu ñu jël suñu àll ñu ne danañu mën naa ñu ñu wax ak salaam rajo ak tamit yàlla ba de ba waxoon pour waxaan lan parce que demoon naa topp ci kasaalikum dem noonu la seen xaaral la waxoon laa yàlla mun xam ñu njëkk de parce que kon nag xam nga ñoo wax ba ñu naan da ngeen a ñaan da ngeen man ñu rek waaye ñun ci yéen lañ bokk daal day kaaru ne kon ñu laa wax ko woon ila xalil nara yi ñëw ci ñoom de pour waxal ñun mu xalafi na ñaan ñu defal ña dina laaraabi ci jigi dëkk dina laaraabi ci way màng te sulaama xaleef naa xooleen ila quwatin ila awum jëm ci nit wuli baatin ñu di borom xaye xare sa bigi daa ji dëgër de waxal way màng yi nga xam ne dañu ñëwoon de bayakuriba ne leen yàlla ndaa ñeen xoos ëllëg ci beneen beneen xare boo xam ne moo gën a tàng mooy xare ba de ba nga xam ne ñooy xare jeeg banu xanifata te yow maama ba mu seen i mata mu tëddee ak xare de yooyu yëpp wax nañ leen ci gannaaw rek su xaati loolu da ngeen xare ñoom aw si mën a dem jëblu waaye gannaaw faru Makka moom gis rek la arab xare amatu ci rek day ci teewoon lu may gannaaw bu mu tëddee mata mu tëddee jaya mama day ci teewoon ñoom topp ñoom yàlla yoo ci ku mu jox leen yoo a sa tawal law ndem dëgg ngeen kama tawallaytum na ngeen dëgg woon ngeen xamu seen dëkk laa bi mu mbugal leen asaaban mbugal aywa mu lay aji métti lay saara laa maa déet waa aji silmaxa xarajin bakkaar ci def bañ a fa ca xarale wala alal aaraji di wala aji labi arajul bakkaar wala alal mariji di jaagan wala aji raad arajul bakkaar ci ba dee jihaad ñoom ci nekk topp nañu laa yàlla war a solo xam ngeen tam ñu xënu ñu xarfe ko jana suñu doom ka dina gën a daw ñu kaate aji di seen naaru yoon ngeen fa de bu ma ne xawal la ku dëgg nangu nag maa ci ñu bugal ko asaaban bugal ali yoon wala aji métti de laa ma ci dara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 ولا حول ولا قوة إلا بالله لقد رضي الله عن المؤمنين وكفر قوتهم واشرك جاهل تكون أديبية فلا قمنا ينم دينه دينا عثمان بن عفان دينا عمر بن جوان تكون مكة إن لم من يوم وفرقه من هو xelal Ousmane moo gën di mat laa ndax moo ko gën a gën a bëri mbokk moo gën a tëdd ci màkk rek te ko xam ni sama kii bi ci ñoom dama naan sama wax ñu ko nangu rek yéen wax nga xewal si dinaa Usmaan nag ba ne ko yow day sooy wax ne Muhammad dugg na Makka ci natale te lu yàgg yàgg nag yaaram di waxtaane mukk ne Muhammad dugg na Makka ci natale maanaam ba nga xam ne loolu am na rek jaxasoo ray na sidina Usmaan suñ demee woon mu génn ci yàlla ne ko fekkee ray mu Usmaan su ma ñu gis te dafa ñëw Makka def su bëgg a jaarante na ñëw Usmaan moom jaarante na li loxo loxo bi yonent bi def li loxo loxo Usmaan la mu am foofu taala yoo xam ne wañ jëkk wañ mujj moo ko ma fa am saaba yëpp jaayante jinne ak ñoom séeméer ñoom ñëpp ñu jaayante bañ jaayante woon ak nag ca la yàlla wàcce laay ji de ne laqad radiya dem na laaw yàlla ani moom ñu ñëw ci gëm ña fii bàyyi woon naka ba doon ñu jaarante yow parce que garab garab ga rek ba nga xam ne saaba yaa ngi garab ga ñëw seen rek ñu naaw fekk ñu jaarante ak yoon bi sallallahu alayhi wa sallam wala moom mu dee ka xam yàlla maa ngi ko doon la nekk ci xol seen de yàlla xam la nekk ci seen xol ci dëggu ak matal seen wax jooje fa am solo tam wàcce fàcc na sa njàmbaar ñoom yàlla wàcc ci ñoom njàmbaar la ñu dara wa asaabahum tam yoole leen fatam ak hudde xali wër bu daal jëriñ de jaayante ga amee nag Quraysh mu ci yónni Suhayl ma am rek dinga te yónnoon ci téere yéenoo yéenoo yéenoo seen ñaari at wala seen fukki at wutal ñoom ci ba nga xam ne yooyu biir séeréer yow doon mën a suñu xaarandi maa fi Saalum moo ko doon bind. ñu ne dina ko bindal bismillaahi rahmaani rahiim ñu ne ko bind bismillaahi rahmaani rahiim ñun xamuñu ko. bisimilah laaw ma ne suñu baa ñu doon bind rek la ñuy bind. yéen dina bindal bismillaahi laaw ma ah lii mooy ñeneen Muhammad Rasulullah ak Quraysh mu ne ko faral ko Rasulullah ñu nangu ñu ñaan ko yàlla la. yéen su ngeen man dañu doon yàlla la su ngeen mën a jëriñ tam. yéen a jàll ba waaye Aliou Dile moom ak Ibn Abdullah Dile moom ak Ibn Abdullah Fall Rasulullah si dina Aliou ne ko xaw ma ban loxo bi bi loxo moo koy far de fekk ne moom du ko far foofu la Sofia kii jëlee ne adab moo gën topp ndigal de sa royteef comme que loo xam ne adab ñëwul de nga xam ne bañ ko def mooy adab nga bañ ko def mooy gën moo moo moo nga def ko rek ndigal la booba mooy far ko loolu la siig naa loolu la yonent digal siig naa de waaye te ginam may na ko mu fàtte ndigal na de ne moom du ko far rek yonent faral ko boppam sallallahu alayhi wa sallam bañ leen waaye ñu ne képp ku bàyyi ko nan ko dàq bu dee ci jigéen képp koo xam na ne murtat na ci sa saala nan ko bàyyi ñu de yéen a nangu naa lu muy jigéen waaye jigéen nga fubu ndax jigéen moom su ko defee jébbalu te yéefar dana aram si moom moo tax ba jigéen moom di jébbaloo di ko delloo yéefaree yéen a nangu fàtte yooyu dinaa Omar jóg ne yonent yàlla xanaa du ne yonent yàlla mu ne ah kay xanaa du ñoo nekk ci dëkk suñ suñ dem suñ dee mu ne ah kay mu ne ko lu tax te dañu loolu lépp lu ci féete def suuf rek ñun dañ ko féetale te ñu di ko nangu mu ne ko Omar man dañ yonent yàlla laa te du ma mooy ndigal yàlla lu ma yàlla digal lay def di nga Umar mer ma jàpp ko mu dem ci dina Abubakar wax ko ko dina Abubakar ne ko Umar sa xoolam dëgg la waa ji rek mu gëm gëm fa xamal ne ci yoon dem yàlla la te lu mu dem yàlla fu digal mooy mu ci ndigal yàlla wax Abubakar bañ a la nga xam ne moom la yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam tey boobu dañu yéenoo ba noppi nag doomu sooy ñu am rek koo xam ne ak ci jébal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu ñu amal ne ko ci jiw affaire tam réew ma ko delloo yonent ne delloo naa la ko mu dem ba nga xam ne réunion nañ ba noppi nag yonent jot nañ ku ne dem laj ay at ñoom te waxtu rek ñoo ñaaxu kenn dugub ndax jaqare ji nekk ji nekk ci ñoom yonent dugg ci barkeneem ne Ummu Salamata digal naa leen waaye kenn dugub xam na mu ne ko da jóg rek julli ci seen yi laj seen yi loolu la ñuy defee ak ñoom wax wax mu war la rek saa yu ñu doon def rek loolu la ñuy def rek yéen si génn rek waxut ak kenn daal di julli ji ak ñoom laj leen ñoom ñëpp gannaaw loolu mu daal di watu ñoom itam ñu daal di laj seen i wàll yi at yi daal di watu ñoom ñoo ko di jël ñu jëlee ci ginnaaw war laaj fana laaj boo xam ne bu dee jaay ngeen di jublu ñu ne lu teew day waxoon nañu ne jënd nga ñuy wët kaaba bi waaw di la ñëw sama ci ñaar ñëpp la duufu jamata mu ne waaw ndax waxoon naa leen ñu ci at mi ah war na dégg ne kat yonent waxu ko ni jaar ni loolu nag yonent na ñuy dem Makka di wër Kaaba gi waaye waxu ko ni jaar ni yonent na ko te loolu ma leen la amul sitt waxuma leen nag woon na ci at mi la am ñu daal di wëññeeku mbañ wëññeekoo ci yoon wala yàlla wàcc ci yonent bi saaru fatti yonent na ci man sànq saar ne moom gën a naa fa tax naa la ca Omar na ko ma lëf li fatu la mu ne ko lëf li fatu la mu ne ko lii fatu la mu ne mu ne ko lii fatu la fekk ñoom booba xamuñ ko de waaye at ma jeexut ñoom ñëpp ñu xam ne waaw bu dee jiyee fatu la de jaayante ko gawoon ca bu dee jiyee nag moom la yàlla wax fii ne gërëm nag ña ko jaayante woon wax na jënd ne seen loxo bañ doon joxante yonent yàlla lañ doon joxante loxo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mën nga takkale teem ak seen yàlla de dañu wàññeekoo nag da dem ba tolloo Xaybar yàlla ji dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu faj Xaybar nag mu daal di takk xare jox raaya ja kenn ci saaba yi mu dem ba mu demee ñu dàq leen damm raaya ja de yàlla ca mu dàq leen ñu dàq leen damm raaya ja te keroog la wax ne damm nañu raaya ji li ñu ne waaw mu ne génn naa ci sama bakkan bi boo léegi ma jox raaya ji koo xam ne su ko joxee duñ ko dàqate buñ dem raayam de ëllëg ma jox raaya ji koo ne sopp na yàlla yàlla sopp na ko ne mos la mébét ak fan lu may ne la ma bëgg rek yonent fal ko ndax ne bëgg na yàlla yàlla bëgg ko rek te suba sa mu ne ñun ñëpp ñoo delloo war ko ku nekk ñu ne ana li naa bi taalib naa bi mu ne ko dafa wanen te wanen te xam ne ne xooleen waa wane ko jéggi dayoo yéen a ba rek mu daal di wér ma ne ji def dundam pour wane ko ci benn benn wane waaye di leen teeloon loxoom moom jaaratu ci wane ko mu taxaraay ñu jox ko leen ci ginnaaw ñu daal di lakk jubali mu xayma yéen a ko taxawal yàlla jubal ci sa loxo kenn nit rek mu wax daa yaay daa mu mën a doon yaay moo gën yàlla may la di ji juróom noonu la yàlla bëggee ba dugal mu wax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah kenn rek moo gën aduna li ci digal ibnaali gali gam tar raaya jële maa rabbu jàmbaari ñëw ci nga xam ne dina ne xeexal moo doon dama raaya ci jëfi jëfi jëfi di tey ñooy nga xam ne ñoo doon digal raaya ja dal di génne jaasiyam de ñeenaal xay bar xam nañ ma maay maa raw borom jàmbar ja borom gànnaay yi ñaaw yi borom xar kanam bu ci bu ci bu ci da jàkkaleen maam dina aali ne ko man maay maay ki nga xam ne sama yaay ma tuddewoon gaynde rek dina aali ba muy niir yaayam daf ko tudde gaynde ndax daf ko yaayam daf ko tuddoon muy niir ci laal ba dina raw yaayam daf ko ci laal ba mu xeex ma moom dafa woon muy niir ba rëy di jànde ah ba yaayam ñëwee na ne man la kese gaynde laa jiite moo tax ñu ko wax Aydara moom la Aydara mooy gaynde moom la sëriñ yi sant nañ leen wax ba léegi ñu wane ne ci ñu daal di toj waaye ñu mu daal di ñëw maarabu moomu daal di koy caw jaasi ne waaw suñu ñaar yi dañuy wax jaaseem su jógee kaw rek dana xar ci xeexat ñaari xar waaw su jógee weer rek dana ko dëgg ñaari dañuy dëgg noonu la bëri woon doole bunt bi nga xam ne ñeent fukki nit a ko doon waaw bët bi bët bi yëngu nag ñeent fukki nit a koy bët bi mu déglu bët bi ñaar yi ñëw waaja mu pakam rot bunt boobu nag si ñaar yi ñëw doon wax ak camion rek gàjj ko. def ko fokk dem moom la doxal ñu jël jama maaramu waaw garay maaramu rek daal di ñëw di tasa jama fa fekk ci màng ak lañ fa am ci xeeti dund mosuñ ko am ci benn xarare mooy mangi xaybare isna ali dellu si danañ nekk di ne ba nga xamee ne isna ali caw na maaramu bañ seet ñu doon dugg dugg xaw xeer wa dana ci jóge ci ji daanu bi mu ñu la xam ngeen xeer wi bu mbokk ñu ne déedéet mu ne ba maaramu ba yonent ba aliyu sayidina ba sayidina aliyu cawe ma abu jaafeeru ja jaasu dafa daloon ca sata ja ca la xeew yi ba léegi mi ngi soog a dellu si ñeent fukki guddi si dinaa di ne ko géej naa ci yónni boo ko fekkoon ni lu toll ni karab bëtëb melan ci ñam wala ndox ñu ngi ci sama biir bi kon du delsi de waaye boobu mi ngi xiif be lu toll ni bëtëb du tuuf melan ko ci ñam wala ndox desul ci biiram ba muy dóor dóor dóor kooku bu lekkee ba tul kum dóor ku baax yow rek waasaaboo tam jox leen fasalu ak bu bee xariban bu dee ak jaynde ba nga xamee ne san jaayante ga ja bayatul Qur'an dëggu na yàlla wàcce na ci ñoom njàmbaar ba noppi amul foofu jox na leen hubbe yoo xam ne yu jege la de mooy hubbe Xaybar ya de wa maxaari moom tam jox leen màng kasiratan bu yaa ci bëri yaa xam soo naa dañuy jàpp ko ak màng yu bëri yoo xam ne jàpp nañ ko ci Xaybar wa kaana laahu ma tëdd yàlla azizan yaa ngi mas nguuram ak man yaa ngi kare bi def doon def fatu Paris na dem lu fasam mu biinan day wax na fasam xariban parce que naa wax ne isa jaa nasrullahi wal fath nga xam ne fatu ñett la fokk nga jeex ci yàlla ñetti yoon da nga jeex ci ay jëfam jeex ci ay meloom jeex ci jëmmam programme fatu la ko ba rek waa soo jeexee ci jëf yi kooku mooy fatu xarit soo jeexee te mare loolu mooy fas ñu diin soo jeexee nag ci jëmm ja sàkk waaw al fatul akbar rek moom la ñu fi def ak maa nga yoo xam ne bëri na de jarañ maa nga Safiyatu bintu Uyayna tarde bañ doone jaar-jaar ya ci detu kan wi ñëw ci Yonent bi sallallahu ne ko may ma ci di mu ne ko demal tànnal boo ci bëgg rek sobal may la ko mu dem ci Safiyatu mu tànn ko rek di dem ak moom ñun ñëw ne yonent sallallahu alayhi wa sallam Safiyatu bintu Hayy Ma'sar mooy doomi bu Xaybar de mën da nekk ci loxo kenn lu mooy sa loxo jamaam yonent ne daf leen di xeeta ñu daf di xeetu kët bi mu ne ko bàyyi ko da dem salmaat ci jarjare bu la neex rek mu bàyyi ko yonent seet Safiyatu dal di ko ba ne ko ba naa la yàlla muy saccam sakk naa la ba yónnoon ci di ci jógee Xaybar ñi nga xam ne maa ngi ñu na Xaybar ñam ña fa doon indi ay jiw nañ leen ñu ngi jógee te itam nga doon pour Xaybar rek muy Safiya bint Huyayy Nasr wa kaana daaw ma sa lañ yàlla xam ne seen gars yi nag ci nguuram ak ci man yaa ngi xale yu ñu kenn ci saxaaba yi ne yonent man damaa bay sama ay gët ak samay bagaas ca Makka te dama ko bëgg a jaay mu jaar dama nga may ma su ma demee lu ma neex rek ma wax ko ci lu dëgg ba mën a jot sama alal yonent ne ko may alal loo neex boo leen waxal mu ñëw daal di jéeyaat waa Makka léegi ma wax leen lu leen dégloo yonent bi ñu fi jógee ci jaayante waa waxu denc yi. dem na Xaybar xare na ba xanañ ko laxel loo xam ne mënu koo gis ci àddina saabam yëpp jàppale ñu leen jaam man nag dama bëgg a wante bi maam yëpp ci dëkk bi dem waa jëm jigéen rek saa way kuréel bi daal di kontaan nag daal loolu mooy dëgg daal ko dimbale jaayal ko yëfam yëpp wala njëkk a daal di yëngu xaalisam dem romb Abbas ñu ma abdul mu tani Abbas ne ko nii solo si ma dégg ne yaa ko wax ci dëkk bi ba ñëpp nam demee mu ne ko nëkkal ma dama wax la liñ ñetti fan nag bu ko natt ñetti fan saa yoo natt bi lu neex yonent dem na Xaybar toj na Xaybar rey nañ góor ña jàpp nañ jaam jigéen ñaar xale ya maa ngi ko béy ñu ngi Xaybar maaral gannaaw ñetti fan nag saa yoo natt li ko ñetti fan nag Abbaas tey sañ de sës ngënu waa jàpp yatam di daagu bu baax a baax jëm ci jawa Makka naa eh, muñ muñ lu mu di ba dal gis ngeen ñu ngi fërante ni ko daal di daal daal mbaxam ni mu ne leen xam ngeen lu xew ne lan mu ne leen yonent toj na Xaybar moo ko moom tey góor ñi fa doon yëngatuñ ñëpp rey am na fa man lu dul ma ngay séddale loolu bu Xaybar ñu ne ko foo jëlee boobu xabaar mu ne ni ngeen jëlee seen xabaar la gannaaw ay fan la ñu soog koo dégg li yonent bi jógee Xaybar ak ci te la dafa Jaafar jógee Abaj ñibbi si moom itam gàddaay fekk ci yonent ak ndawal Najaasi buuru Habas juróom ñaar fukki ñu yónni ci yonent bi di feeñam ak jëbbam ak jaayanteem ak yonent jëlañ ko jaaree Ummu Habiba doomi Abi Sufyaan ya nga ne na jaat yi naka la ko yonam rek indi ko ko def keroog la Rome not Paris wa yow it yéex a woon mu ne Nasrillah waan jala jaay na yàlla lakum ñaa leer aas yi giree wa kaf ko fekk na mu ay yéenaa bi loxo nit ña an ko mën di leen yàlla de de na leen man li bëri xam ngeen am yeneen man la waaye nag jaay na kii rek ma nga xaybar bi moo fekk itam. loxo yi yéen yéen ba ngeen génnee jëm ci yéewal ya jàmbaar yéewal ya yàlla na sax ci seen xol ay ragal leen wali tàkku na ak ngi na nekk man buñ jaay jee ayatam su man la rek moom ñu ñeen gëm ya ñeen way gëm ya ren te ci lii di leen ya yàlla defal ci xayba dana tax ñu gëm ne yàlla lim leen dël yëpp dana leen ko teewalal de wayaji yekum dana mu ci ba leen siraatum yoon mu xam ne mu daal di des te mooy yoonu bu gën a yàlla jërëjëf sëñ bi ñu gëm ci moom de woo xaraa ak yeneen màng lam sax di loolu attanu leen ala ci ñoom de yàlla may na leen yeneen màng yoo xam nañ ne seen kattan ak ku ci jot rek mooy fari seen romb de xanaa salaahu yéem na yàlla yaa ci ñoom de yàlla xam na leen sax xam na ne yëpp ci seen loxo lay mujj bi wa kaana laahu mos a dañ yàlla xam di leen yaa ñaata maaraatu seen ci lépp walaw qaatalakum donte xare woon naa di yéen dafina ñaaga kafaroo rek nañu teew tey bi a la wala konte ñu dëdd konte ñu ña nga def las baara gannaaw ya mbir ñu ci way dawee parce que yonente saaba yi jaayante jabayatul am te bëgg a juulu Makka faj ko yàlla atte yéen wooga am rek yonente bi waññeeku waaye suñ xare woon ñoom keroog waa Makka musiba daleen de xam di daw de su ma daaye ji wa sadduukum tañ teg leen ani masjid yi wér jàkka ja xaraam yi dañ ñu xaramaal ñoom ñoo leen teg aaye leen masjidul xaraam ne du ngeen caag wala ya dañ teg aaj yu maax toogal di ñu ñu luñ jàpp an yab lu xamum jaran may daro barabam la jëm de nga xam ne ñun ñëpp seeni aaj yu àggut ca fañ ko wax na la jëkk mooy marwa wala wu daari jaarun dugal ci ko aw góor moom mi doon nañu way gëm wani saa wu naaj ci yéen moom mi naaj ñuy way gëm yu nekk ca biir Makka lan saala moom xamu leen leen an tatawum bu ngeen rayat leen parce que bokkum sa jot leen minum ci ñoom maaratu gàcce bi xayri am ci xam-xam su taxu doon ak loolu kon yàlla ci nga yonent mu faj Makka keroog rek gara léegi tamati ci pour day dee yonent bi wàññeeku mooy booba julli ñu bëree nga ci biir Makka di nëbb si gëm te booba su yéen a duggoon Makka duñ leen xam ñëpp dañuy rey te bu ñu reyee ji dina am bakkaar moo tax yàlla fekk waaw xarala ba nga xam ne yéen a ko wàññeeku. def yéen a doog a de gannaaw ba nag ji ñëwee na ñëpp waaw feeñ nañ de yéen si la laaw ñu ma xam ne yàlla dara ma ci jeexir maa ngi leen di gëm yàlla ma ne saa ku mu soob law sa sa yàlla doon nga beroo woon nañ ñoom ña gëm. daan sax naa kon tey nu bugal àll dina ñu nekk borom weer dinañu ñun ñoom de su fekkoon ni booba ci ñoom daal nañ bañ xam ni leen boo yëgalee ñoom ñëpp ñi yóbbu leen alaxira rek ba yàlla musal leen asaaban bugal àll yow daa ñu mën di de jaan la ba defee àll dina ñu nekk borom weer dinañu te xooloo bi ñu ci xol seen alhamdulilah cox cox lool ah alhamdulilah jaay yi ñu cox cox lool wéy yi nii rek ba nga xamee kuréel njombalu di jotjotlu waaw topp aada yi yéen ba ñu jëndee nit ñi fa ñëwoon ah, ak seen doole rek bee la woon ngóor war ñu la ko jox rek te turu laa ilaaha illallaa Muhammadu rasuulullaah yàlla ngi wax ne saaba yi ñoo ko yeyoo te ñoo ko yelloo moo tax mu jox leen ko rek moo tax mbóot buñ ko jox bu ko yelloo kon tooñ nga mbóot ma bul ko aaye itam ku ko xelloo kon tooñ nga koo ko def loolu moo tax wàllu yi dina bëggee ñu ko def danañ nekk li ne am na benn sëriñ amoon na benn taalibeem bu ko nangul ab diit nag mu ne ko dama nga xamal ma bis mu laa sant nga xam ne ci la ñuy toppandikoo mu ne sëriñ bi ni ko wax muñal muñal muñal muñal muñal dem sa sëriñ ba sëriñ ba ne ko demal ca pour wala yoon sàngam xendu ko bu ngoonee nga ñibbi si wax ma ko mu dem xendu ko gis màggat moo xam ne jege na juróom ñeneen fukki at ma nga taxani matam te matt moomu lay jaay bu jaree ci lay amam añ bu jarul sax du añ benn alkaati fekk ko war bugal ko nangu mattam ma ne ko yamal matt yóbbu ko ci suuf gaa buur bi mu bëgg bañ mu dóor màggat moomu loolu da màggat moom mu jëriñu matt mooma yam jëbbale ñu koy jëfandikoo gaa buur ba ñu ñëw sëriñ ñu ne ko loo gis mu nekk li ko ne ko loolu laa mu ne ko alkaati bay def noonu màggat moomu su fekkoon xam nga li suulaasam bi nga xam ne loo ci ñaan moo kon nooy def mu ne kon ma ñaan alkaari boobu maa la ko ndax li mu def màggat moomu mu ne ko màggat moomu moom moo xamal li suulaasam man màggat moomu ñuy tooñ ñooñu di ko tooxal mu ne ko man mooy sama sëriñ ci boobu de moo tax ne yàlla boobu wa kaana laa ma tëdd yàlla alimante aji xam fi ko ni tey ci lépp la de la xas sa daxal laa dëggal na yàlla soo daw yonentam ba ruyaa jël dëgg bi laa ci dëgg de la yonent ne woon gént naa ñu dem Makka ñu ngi watu ak a duufu ak a lëkk suñuy hadiyu yàlla dëggal na gént googu rek mooy lan la taxulunna wallahi da ngeen xaraf al masjid a jàkka yàlla ala ma jëriñu wax maa insha Allah ne ko na yàlla amin na mbir mu ngeen di wéy loolu yàlla dig na leen ne laa budda da ngeen dugg Makka di wër ca Kaaba ga te du ngeen ragal dara rek insha Allah rek ñu wax na ko ngir barkelu wax na ko ngir lan ngir xamal ñu waaw ñun li ñuy wax dem jëmmalëg rek war nañoo wax incha allah waaye yàlla kii wax moom soxlawul incha allah ndax moom mooy soos da ngeen dugg Makka di wax seeni bopp ba mu xas dinaa dañu way duuf de la ma xool am na ne watu nag ci ko aj ba ko xam la ba xeereeku wala ko aj ba xeereeku watu moo gën duuf de watu mooy watu waleen kawar gi duuf mooy nga tas waaw nga puus lay kawar bi bàyyi cee dara ndax li yonante ne yal na yàlla yërëm wattukat yi ñu ne ko ak way duuf yi mu ne yal na yàlla yërëm wattukat yi ñu ne duufukat yi nag mu ne yal na yàlla yërëm wattukat yi ñu ne duufukat yi nag mu ne ak duufukat yi laa taxaab boo ragal ci leen faalima xam na mu maalam taala moo lu ngeen xamul ca xéwé noo ko jaara sam def min dooni taaliga ca xéwé doole fasan a bu fee xar yoon bu dee ak mooy maa ngi xay ba dee defal na leen saxul xar yi ngeen fa far maa ngi maa ngi yeneen ci jëlee wow wow moom buur àll bi mooy buur bi nga xam ne ar sori ngeen ñëw restaurant yeneen def ko bi doo daa ci bu ko ci laajte gi ñuy dëkk yi ci raw yi namu nakal baax la ci ci ñuy dugg yi ñëpp de yàllaa ci yoon yoonu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ko diine lislaam te dana kawe diine lislaam xam not mboolem diine yëpp addina du tukki lu mooy lislaam matale na addina mboolem diine yëpp ñu xoli leen lislaam def bi loolu dërëm yàlla la koo xam ne addina du tukki taxunu mooy maanaam laay ji wala lislaam moo féete kaw kaw yi ne ci saayir mi ngi mel ni am na ko kawe soo seetee rek xam ne moo féete kaw rek ci nit yàlla rek lañ gëm yàlla rek lañ ragal yàlla rek lañ yaakaar ak li ñuy tuutee li ñuy ñàkk ay jumtuwaay ak gannaay yëpp te réew ñu seen kóllëre ndax yàlla lañ sukkandiku te ragaluñ dara ñu ci def li ñuy bëree li ñuy bëri kàttan nag li ñuy bëri gannaay ay pexe yëpp ñu li ñu leen tere nelaw dañ leen ragal ragal ragal ragal ba nga xam ne soo leen ñu daw te jullit ñoom ragaluñ leen kon nag lislaam a féete kaw fii wii mu mel ni dañ ko naftaam moo féete rek te loolu yàlla wane foofu dooleel te ragal yooyu rek moom la yàlla waxtoo lislaam ba léegi waxoon na ne sànni ragal ya ca xoli xéefar ya loolu jagu jamono joojale léegi xéefar fu ne yàllaa ngi def ci xolam ay ragal ci wàllu jullit ñi ragal ah, yooyu tax ko nag moom kon ñu ngi bëri war nañu at ñooy de ndax lislaam rek lañ bañ ñu ngi mel ni laaj ci seen i bët waaye daal ànd ak loolu yëpp ñu ñooñ lislaam gën a gën a sax ñoom ñu ñooñ lislaam amul luy dem xayma de waxtu faa doy na bilaay yàlla day daan yaa ji de dëggu de yàlla doy na la seede ne yéen def dëgg nga muhammadun muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi mooy yonent yàlla de Muhammad mi de mooy yonental yàlla kooku mooy turam yàlla màggal na ko ci alxuraan de bu koy woo du jaar ci turam mukk yaa yoo na bi yaa yoo rasul ngeen dégg yaa yoo mutamir yaa yoo mutasir daf koy dakkantal rek nag nga xam ne buur buñ màggal kenn du jaar ci turam dañ koy wax yaa yoo xalifatu yaa yoo malik noonu la yonent bi màggee fa boromam te jaamam rek la lu borom bi jublu loolu mooy mbindeef yi màggal ko rek suñ màggalee yonent bi daal di màggal diine bon ñu mën ko topp daal di taxale kooku nag mu tudd turam ndax ñu xam ne yonent bi ñuy wax kii la moo tax bi mu wóor a turam ne muhammadun waaye teg na ci lu teg le màggal de rasulullah wax na feneen ma kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallahi wa xaatiman nabiyyiin wa ma muhammadun illa rasul fi mu tuddee suuram itam indi na alam gi waaye lëkkale na ko lu tekkalee màggam gi ko yàlla màggal ba dee fokk mu teg ci lu wane ne yonent bi yàlla la bi ma unsila ala muhammadin wane ne moom lañ wàcce ci moom téere bi fu mu ko tuddee jaar ci turam daal dana dana ca dana ko lëkkaleeg lu ne mooy yonent bi yàlla màggal leen Muhammadu moomu nag mooy turam bi ko Abdul Mutalib tuddee su dem ci asamaan moo doon Ahmad yàlla géej na ci ne bu gën mukk nit koo xam ne su dem Muhammadu la wala Ahmadu rek moo tax ñu bëgg soo amee nga tudde ko Muhammadu de yonent na nga sax loru kenn ci yéen que am yaari Muhammadu ak yatti Muhammadu maanaam nga am say doom nga tuddee Muhammadu waaye itam du lor de dafay jëriñ du lor am na waa ñoo xam bari ay kenn julliwu ko yàlla wax yonent ba ne na jóg ji wàññi yàlla wi de ñu seet ne ana ku fi dee tey ñu ne Fatou bii rek lañ xam ci ku dee tey mu ne yàlla yaa ngi may julleloo wàññi yàlla te man ci duma benn néew lu may néew Fatou bii nga xam ne mos na def lu baax rek mu ne ko def naa def ku ñu bi tawra ci dégg bu Muhammadu waaw mu teg ca loxoom bon ko de looloo tax waaw ma bind ko ci sama diwaane wala ñuy dajoo ko jullee ko jotuma ci dem jëf dara ak yàlla la jëm. wala dina ñaaña maawoo ak ñekk la ñu ànd ak moom saaba ya seen melaw ngoo ashiddaa way xiif lañu al kuffaar ci yéefar ya ramaa way yaram ci moom aw yiw la bu saa duñ julli ci guddi sax kanam dana rafet ca bëccëg kooku mooy mandarga moomu yàlla wax daanaka loolu la ñuy tuddoon jur melaw masalu mooy melaw daal di tawree di ci tawree tawree li noonu la mel ne saa waay yonent dañoo xiir xiir dañoo soppar seen diggante dañuy xool su jóor ngir bëgg nga demal yàlla soo gisee seen xar kanam yoo xam ne leer naññ nit la ñu bëri julli loolu la taw reer wax rek bu masalum mel seen bi di jiidi ca din jiin nag din jiin moom it melal na melal na saa fay yonent bi te sax naka fay lañ axraja moom gën a namu saqaro gàncax xam nga de benn mbay mu tàmbalee saxal gàncax ba aararoo dem dëgëral ko te saxla ta tam tam fat sawa tan jub araato ci ca peeram de yu jibu dana mu ñëw loolu kuraawe bay ña de liñ jin moom dafa ne saaba yonent yi leen mel dafa mel ni mbay moo ji mu tàmbalee sax weer gannaaw ga mu màgg ba dëgër gannaaw ga xol ba fees dell tan ñu toj nga xam ne baykat bu ko gis dana kontaan de ñu ne génne na gàncaxam nga ci Seydina Aliyu dal na dëgër na ci Seydina Umar génne na cuucam kay ci Seydina Abubakar Siddiq dëgër na ci Seydina Umar ibn Xattaab leer ba dal na Seydina Usmaan mu taxaw ci peeram ci sidina Ali ibn Abi Talib ñooñu ñooñu xulafaaw arbaati booloo lislaam mi ngi meloon ni ñu néew doole ñoo ñoo ko dëgëral de ba muy ñëw loo baykat ya Yaxiisa def na yàlla loolu gis na mu mer lool di ñëwaat ci paara yi bëree de lu tax yàlla feeñal fi di njëlbeen ñu néew doole. benn yëfër yi yaakaar na daañu leen mën a faagaagal ñuy dëgër tuuti tuuti tuuti ba mujj dëgër waaw mun a ne léegi a tuñ leen dara gannaaw dañu fal leen not ndax loolu leen gën a merloole su judduwoon rek judduwaale judduwaale seen doole kon moo leen di gën a neex ci liñ liñ gis de néew gi néew doole bañ yaakaar ne ñii duñ tekki dara ñu yàlla dimbali ñëw not leen loolu leen gën a merlool ñoom yëfër yi de waaw da laaw dëgg la yàlla allah dina ñooñu amanoo gëm nañu wax ne la dañu jëf baale ak i farataay maa ngi lay mel ci ñoom max ko def ba waa jiran ak ab yoram ak yu mel ni daa ji màgg rek te mooy aljanna rek